salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum am di jàmm yi tey nag am na mbégte jàkkaarloog waa adduna bépp sama bis le 27 avril au Jet Café mu ànd seeg fans club ah ma tudde ko ku rëy ku màgg taalibe Serigne Saliou bi honorable Fat Sène responsable politique APR nekk ku bëgg Macky Sall nekk ku bëgg Bambey mag ak ndaw góor ak jigéen xeebalu leen dara honorable Fat Sène mbootaay sa loxo ngi ci biir ah nag suma jigéen bëggal ma boppam ci yàlla rek tax le 27 nag c'est le 27 avril la honorable Fat bëggal ma boppam rendez bi benn date la le 27 bis baa ngi noonu sa bisu bopp la maa ngi woo suma xarit suma kilifa muy mère Gana Mbaye bëgg Bambey Bambay ñor ko mu nekk am fullo taaliba Cheikh Ibrahima Fall bu mag bi doomu yaay Babacar Babacar suma xarit ah maire Gana Mbaye bis baa ngi noonu sa bis la yow lañ ko tuddee ñoo ngi la ciy xaar le 27 avril boo jot café mi ñu ñu safoo di ñu seetaan saay suñu ci suñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax yéen ñëpp tey nag dañoo ñëwoon fii dala suñu benn artiste muy Madiagne xaama bàyyi ko mu nuyoo. ba Ndiaye di siyaare ñu fa nekk ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen am contentement bu baax a baax a baax a baax ci jàkkaarloog yéen Madiagne nag mi ngi nekk jeune talent boo xamante ni nga mi ngi doore woy ba njaay yàlla dogal ñu ñëw fii Ndakaaru xam nga ñu doore ci ay simba mbappat xam ma ba yàlla dogal ñu dugg ci musique bi waaw yaa ma gën a xam. Euh, tey jii nii dama bëggoon xam Madiagne yow kañ nga dugg ci musique. moom laa lay wax noonu dafa mel da ngay nelaw wax naa la depuis ma doon xale musique moo yàq suma jàng. Mm-hmm. parce que dama daan jàng nekk ci école bi war a riche yi di woy xam nga mais nag am na ci loo xamante ni yàlla moo koy def ci doomu aadama xam nga doomu aadama bu ne boo sañoon xam ma da ngay nekk ci loo xamante ni kenn du ñu déet mais nag lii mbir la boo xamante ni yàlla moo ñu ci nattu. ñu koy sant yàlla suñu famille doon ay géwal mais nag doon géwal taxul nga doon woykat wala nga doon kat yu know waaw ah, li am solo ba am solo mooy yàlla mooy xool fu ko neex mu def fa la ko neex loolu daal moo tax ñu màgg doon ay woykat. léegi yow Madiagne gis nañ ni da ngay dem ci xew yi euh, ak anniversaire yi ak euh, affaire yooyu noonu dañoo bëggoon xam ndax dañ lay invité wala da ngay jékki-jékki rek dem pour am buzz. non mais damay dem pour su may fans damay dem euh, pour su may am di jàmm ndaxte ñun euh, population bi lañ fi nekkal you know waaw ah, li am solo ba am solo mooy ki lay bëggee mënoo ko fay ki jël xaalisam dagal la ko ticket wala ngay joué mu paas ñoo fekk si la kooku je pense bu la defloo anniversaire woyloo la ko wala mu invité la ci xewam je pense war nga mën a ñëw mais du question wut xam nga ma la mais dañuy sant yàlla même bu fekkee ñaari nit ñu ñuy bàyyi xel dañ koy sant yàlla parce que nag àdduna yamul ci benn bés ñu ngi ñaan yàlla fi nga xam ni fi la gars yi nekk ci kaw wala lu ko raw ci kàttanu suñu borom ñu teg fa suñu tànk ndax ci ñu ngi ci yoon bi di dem incha allahu rabbi léegi yow Madiagne gis nañ ne xew yi ngay dem euh, dañ fay taseeg say yeneen moroomu artist genre ay ñoom njoogu mbay ak yooyu noonu dama bëggoon xam sa relation artistes yooyu noonu ak ñoom Ndiogu mbay ak yooyu noonu loolu laa bëggoon xam. daal Ndiogu Mbaye rek nga ci taamu quoi. <laughs> waaw hmm. nga euh, waxoon naa ko ci ay site internet ñun duñu ay ennemis you know ñun ay doomu aadama lañ. ñoo bokk aadama ak awa nekk ñu fii di xuloo di ŋaayoo lem solo bam solo mooy ñu bëggante ci yàlla tax ku ci nekk boo gisee sa moroom nga jox ko cër. Ndiogou Mbaye maak moom nekkuñu di xëccoo bi muy fecc man la doon bëggee boobu maa ngi woy boobu moom boobu woyagul kon tey ji euh, senegal moo dëppoo noonu yàlla mi dogal euh, man yëmbal laa juddoo boobu xaw ma ni woon sax ba xam dinaa woy wala xaw ma ba xam dinaa ñëwaat yëmbal comprendre kon maa moom du ñu ay rival comme ni ko nit ñi di wax defuma ko rival barki Serigne Touba parce que fu ko gis dama koy nuyu moo sama xel dara parce que dama jàpp ni euh, nit ki mënoo ko bëgg ba pare leneen di ñëw sa bopp koo xamante ne foo musaan toog di woy mu ñëw toog sa wet dama bëgg mën a woy yenn saa yi mu woy ci suuf ma ne ko fils yow nga bàyyi sa fecc mi woy di ndax li ngay woy dafa neex ñoo bokk ndey ñoo bokk baay man jàppalu mu benn artiste lenn lu ñaaw wala ma la koy xoole parce que dama jàpp ne rek ñun ñëpp benn lañ te suba kenn ku ci nekk mën nga jariñ sa moroom ay nekk fii yenn petit détails yi du luy jëmal kanam aar bi parce que lii mbir la boo xamante ni famille la ca aar géej la kenn moomu ko comprendre gis nga ko mu ngi doon fecc léegi mi ngi woy mi ngi nice mi ngi noonu dañ koy ñaanal aussi li ñuy ñaanal suñ bopp di ko ñaanal bépp artiste euh, fépp fu mu fëgg rek yàlla bi bunt yi ñun xoolu uñaan nekkul ci ñun parce que dañ ñu yar dañ ñu tarbi famille bu ñu bokk nekk famu noobul boo déggee yenn saa maa ngi koy wax ci yenn site internet yi ñun mënuñu soxor parce que boo déggee Iran Ndaw yenn saa yi mi ngi wax géwal day mel ni Boumy Mbengue Boumy Mbengue mooy suma maam ça veut dire que sëñ Fallou dafa ñëwoon Taïba Boumy du ko tagg sëñ Fallou may ko xaalis bu bari xam nga xaalis boobu mu ciy dund yàlla dogal leen sa xaalis boobu jeexoon na mais heure bu sëñ Fallou ñëwee ni ko waa Boumy ana la ma la joxoon danaa ko maa ngi dund ba léegi Mbàkke loolu mooy ngor loolu mooy gore loolu mooy jàppe sa bopp noobul loolu moom solo loolu la ñuy dund Njoogu Mbay suma frère la rakkam bu góor dafa may bëggee bu ma gisee may woy day kontaan kon man aussi bu ma ko gisee may woy damay kontaan parce que damay jàpp ni bëggeel gi nekkoon ci moom je pense mu ngi ci moom ba léegi man tamit jàpp naa ni loolu nekkoon ci man ba léegi du musa a deñ kon je pense da ngay wax artistes yëpp du Njoogu Mbay kase Njoogu Mbay suma frère la bu mu bëggee dem ci moom direct dama fay dem boo ko laajee dinañ la kii dama ko yàgg bëgg xam nga nag Sénégal moo doy waar xam nga way yi moom daa xaw doy waar dangay nekk ci benn affaire ñu lay jay naa la kii laa kii la xam xam rek te man moom noonu laa ko demee ci artistes yëpp xam nga ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mi ngi noonu. waaw kon sama gars yi ñun ñëpp a ko déggandoo euh, Madiagne lu mu wax leer na moom ak Ndiogou Mbaye euh, dara nekkul seen diggante ñoom ñaar lu mu waxee nii comme ay mag ak rakk. nu mu waxee nice na torop léegi dama bëggoon xam ma Madiagne ndax euh, pare nga pour def duo yow ak Ndiogou mbay loolu laa bëggoon xam. waaw mais bien sûr loolu moom lu may kontaane la bu baax ndaxte man mosuma ñëw programme am mais moom mos na ñëw suma programme euh, je pense bi mu programme bi nag xam naa am na ñu bëri jàppoon nañ ni Ndiogou Mbaye ñëw ci programme bi man duma ko jox micro man li nekk ci man depuis ma doon xale la. aw naa ay artistes yu mag ku ci mel ni ay Alsaan Mbay ay Yves Nia ay bëri na ay waykat yoo xamante ne dama leen di fréquenter di toog ci ñoom kon damay am contentement waykat ñëw suma programme ba ma yëkkati micro jox ko comprendre sama diggante maa moom jàppalu ko dara pare naa pour ñu def duo ak moom bu neexee yàlla suñu borom ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ci li ma jàpp bokk te je pense que aussi loolu moo nekk ci ah, leer na ah, léegi ma jaañ nag. li ma bëggoon xam mooy ndax am nga soxna. waaw loolu moom bëri nañu koy laaj mais sans bi amaguma soxna. looy xaar. ah maa ngi xaar tout rek incha allah boo affaire yi gën a kii tuuti rek. incha allah projet yi moo tax wala lan. waaw xam nga àdduna moom étape par étape la. jërul njëkkante jërul xool asamaan si naan xool xajal ma mu xool da ngay def ndànk par ndànk rek lu lu ñëw rek xam nga da ngay xaar temps jot nga def ko loolu mooy sa vie da nga koy organiser daal. waaw ah, am na solo ci àdduna incha allahu rabbi bu jotee rek ñu def ko incha allah. ma doon wax ci biir mbëggeel tey jii ñëw na tey.